Pape Sané par euh, euh, euh, le dernier point ñëwaat ci déchirure bi nga xamante ni moom la ñu nemmeeku ci candidature Amadou Ba ak défection wu Mame Mbaye Niang waaw Amadou Ba na day nekk candidat Aly Ngouille Ndiaye moom nee na day beru Mame Boye Diao beru na fii Boun Abdallah Dionne beru na fële Mame Mbaye Niang aussi moom bon man la ma waxoon démb wax mhm. Amadou Ba xam naa ne peesewul dara waaye man candidat wu Amadou Ba laa gën a respecté que candidature ñeneen ñi. pourquoi. voilà. xam nga ñoom ñëpp dañuy yab Sénégal yi Aly Ngouille Ndiaye. Boun Abdallah Dionne. Mame Boye Diao keneen ku bokk APR wala Benno Bokk Yaakaar da ngay yab sénégalais yi. yab sénégalais yi weesuwul. Mhm. nga toog xaar ba président de la république ne moom du candidat. Mhm. ngay soog jóg taxaw ne yow candidat mooy benn. mooy maanaam ñoom comme ñoom mu musuñu woon am am ambition. ñoom amuñu woon ambition sa di ñoom mooy boye ñaar. ñu dem ba ci biir président wala na leen candidat yi da fa bari dangeen may bàyyi dangeen may kii ma tànnal leen ñoom ñëpp ñu d'accord ne ko. gongo président koo ñu tànnal baax na. Mhm. président tànnal leen. Mhm. ba mu leen tànnalee rek après ku ci nekk gis ci boppam xam naa nag président da leen baax président naanaan la de <laughs> barki Rasulullah mag naanaan la xoolal xam naa ne day ñëw na la Salma tu sais tu es mon homme voilà man xam naa ne yow euh, li nga def Sénégal kii dem seeti di wax ak kon nag ñun ñëpp ku ci nekk mhm. comme dégg na ku ci nekk ne man la ku nekk dalal sa xel gars yi ne d'accord man kay xam naa ne ci jamono yooyu. président lenn rek la fàtte dafa waroon indi kaamil alxuraan na leen ñëpp waat leen. <laughs> loolu de moo ci desoon kon. xam naa ne daa gën ci xelam. Mhm. mais waroon na ne Moustapha Niasse. Mhm. indil kaamil alxuraan gars waat. Mhm. parce que ku ci nekk xam naa ni jàppoon na ni ko moom la. waa léegi moom tànnal la leen. Aly Ngouille Ndiaye beddee ku jaar fële. Mame Boye Diao jaar fële Boun Abdallah Dionne jaar fële double bouton oui ah waaw mais man tey man Pape Sané oui man je respecte la candidature de Amadou Ba parce que Amadou Ba. waaw mais mais Ba est que man mii Salma mii sama candidature bi dama ko mujjee annulé mais su ma ko respecté woon. est-ce que mën na maa gagné nag. non mënu la gagné Amadou Ba mi nga xam ne baatam sax fi nekk nii li ñuy naan comédien yi dinañ am ko a euh, reprendre. parce ñu meewul wax rek ndeysaan. waaw léegi nag dafa ñemewul wax nag. non ñu tànn. Mhm. non non man nañ ko. oui waaw léegi nag ñoom. léegi nañuy soog a gën di wan sénégalais yi ñoom am nañu ambition que ñoom ay nañu ko ba mu ñu fontoo. <laughs> Mhm. gis nga ñii ñëpp ñoom ñii nii man dama jàpp laa la wax. Mhm. bu weesoo espèce su jëngu yi ñuy jëngu nii. Mhm. gëmuñu sénégalais yi. parce que ba ñu gëmoon sénégalais yi. Mhm. keroog ba président Macky Sall dafay deuxième mandat am réélire deux mille dix ñoom waroon nañu commencé di daal seen paaka. ñëpp xam ne que ñii dañu bëgg nekk ay candidats. mais xaar ba tey ñëw commencé lii bu ñu sonnal ñoom ñëpp tant qu'ils ils sont comptables des dégâts qui se sont faits dans ce pays. oui ça je suis d'accord. Mame Mbaye Niang. Mhm. na moom du jàppale Amadou Ba waaw moom bu jàppalewul Amadou Ba ku muy jàppale. loolu naa laajte. mooy maanaam dañuy dellu ci ci li ma leen waxoon président. Mhm. pareegul de. Mm. président dafa am candidat benn mooy Amadou Ba. ah euh, surtout Mame Mbaye Niang sachant ses ak le président. président tànn. moom mu ne du ko jàppale. nee nañu naar gu ndaw ga la mu wax. ca berkel ga la ko benn président. ne woon naa dafa am candidat bennoo. Mm-hmm. Amadou Ba la gisoo investiture ba. waa PS ak waa AFP ñaari parti yooyu nga xam ne daanaka mbarki Rasulaay Senghor xam naa xam ju fa ñu toog mhm. fa ñu non seen xol war na tàng parti yooyu léegi ñooy jàpp euh, pañe marché di yóbbu di di mhm. non di doy na waar ñaari élection ñooñu ñoo waaw ñoo nar a ñoo ñoo investir Amadou mhm. léegi nag mu des candidat APR ak candidat wu président Macky Sall <laughs> candidat APR des na ak candidat président Macky Sall te nag xam naa ni candidat président Macky Sall am na foo ñuy toll. Hmm. candidat président Macky Sall day ëlbatiku doon Macky Sall. beneen ah mardi prochain on en parlera. mais loolu neex na de. non li ñu cabaxal noonu neex na de. on en parlera mardi prochain. <laughs> Ah, des na candidat APR bi comme Mame Mbaye Niang nee na du ànd ndax Amadou Ba. Amadou Ba oui. léegi candidat APR bi feeñ. Hmm. bu candidat APR taxawee. Uh-huh. te gis nga Salma foofu laay clôturer gis nga la dernière sorti de maître musa la. maître Moussa Diop mhm. accusation yi mu def. Mhm. ak fit bu mu ko defee. oui. mardi prochain. Mhm. daañu leen wax fan la maître musa sukkandiku. ba wax li mu wax. fit gi mu am. ba def lii. d'accord. en et ce sera contre qui pour qui. ok en tout cas mi ngi noonu mu di ay kàddu yu am solo ay cax yu nga. mais ça c'est le directeur. ouais non mais la quoi mais il est beau quoi viens là viens. c'est qui. mais c'est le non xoolal mu ngi non non. Ah. il est beau ma ne ko comme ça. non non il est beau quoi. waaye eh, eh, cool. tàggatoo. oui ok léegi noonu di leen jox euh, rendez-vous mar jeudi prochain on espère que liñ leen euh, tegtal ci ay informations.